السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيل الصبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل فيما ورد عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع حتى آخر الحديث أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ثم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuzlamun qaala taala man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid hada wa salawatullahi wa salaamuhu alayka ya xayra xalqillah fa mablagu lilmi fihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillahi kullihim aw kama qaal wa sallimu tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار wa kullun fi falakin yasbahun bokki jullit gannaaw biñ sant yàlla tabaraka wa taala ci xiiwal yi ñu jox mu mel ni ajumaa bi passé ñu ngi woon ci diggante ak diinu nasiha ne doomi aadama yi yàlla ne diine bii nga xam ne moom laa tudde diinul islaam te ku si jàpp jëfandikoo la nga xam ne moom laa ci santaane bàyyi la nga xam ne mooy tere ya ne bu àllaaxira jotee ma dugal la aljanna ne képp ku nag ku jàpp beneen diine bu dul bi nga xam ne muy diine islaam ak mu manti doon boo ñëwee ci àllaaxira perte kasaara ñeel na la wa man yabtaxi gayri islaam islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axira min alxaasirin yal nañu yàlla musal ci perte ci àllaaxira yal nañu yàlla dugal aljanna waaye yal na yal nañu yàlla musal ci safara ak ci mbugalu àllaaxira mu mel ni kon mu ne ñi gëm yàlla ay bokk lañ ñu wax ci lu bëri loo xam ne du mën jeex boo jëloon ci innamal mu'minuna ixwa da danga def atta doo jeexal lan mooy mu'min lan mooy ixwa lan mooy islaax bay bayin kooku mën na jël at lëmm te doo ko jeexal maa faratna fil kitaabi min shay beneen bi ci des mu ne na ngeen di laayante biir laayante biir du kii di mag wala di gone du kii di góor wala jigéen ne kenn ku ci nekk am nga droit laay biir sa morom mu dem ba ci tooñ mu ne na nga dimbali sa morom sa mbokk unsur axaaka zaliman aw mazluman na nga dimbali sa mbokk na nga taxaw ci wetam gu tooñee ak guñ ko tooñee saxaaba yi laaj ko ne yaa rasulullah xam nañ nit ñu tooñ ko nga ñëw far ak moom jàppale ko dimbale ko waaye ñun mënuñoo comprendre nit ki tooñ ba pare nga ñëw di ko faral mu ne ñi ngay faralee ki tooñ mooy nga téye loxoom yëkkati ko ne ko hee yow yaa tooñ bàyyil tooñ loolu mooy bàyyil yàq loolu mooy bàyyil fen loolu mooy bàyyil wor loolu mooy bàyyil tappale loolu mooy bàyyil kiñaan loolu mooy bàyyil jóob loolu mooy bàyyi lii nga xam ne mooy takabbur te mooy rëy ak rëy rëy yi yëpp nekk ay jikko yoo xam ne benn bu ci nekk yóbbu na boromam ci safara waxuma laa na nga am ci lu bari bi ma anaa bi nga xam ne moo tudd fen yóbbu na nit safara moom kese yóbbu na nit safara bi nga xam ne mooy kiñaan moom kese yóbbu na nit nga xam ne mooy jow boobu kese yóbbu na nit safara waxatuma la yii sax waaye ñaaw njortu sax te waxaguloo yàlla ne yóbbu na nit ci safara kon wala tajassasu wala yaghtab comme ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma axihi maytan fa karihtumuuh wattaqullaha inna allaha tawwaabu rahim kon mu mel ni kon su fekkee ne yaa ngi wax nit ki ne dama lay laay biir su moytuwul tuuti rek mu daal di gis moom boppam fa mu ne ci palam fa mu ne ci santam fa mu ne ci dayoom fa mu ne ci martabaam fa mu ne ci maqaama waaye xatta sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam daf doon nangu ñu di ko critiquer ci yenn yii wala ñu di wax ak moom ci yenn yi ci baatu critique déedéet du nekk critique comme ni ñuy critique suñu morom suñu bopp waaye déedéet ci indil ko xel ak xalaat ndax lan ki nga xam ne moo la mag ki nga xam ne mooy sa kilifa ki nga xam ne yaa ko mag kenn ku ci nekk bu defee njuumte am na noo war a waxee ak moom sa na sayyiduna wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam toog na benn bés mu gis nañu jëflante ak tàndarma ci biir madina ñu ne dañ la ñu takkal mu gis ko mu xaw a aada lool mu ne leen bàyyi leen lii ngeen di def ba mu koy wax nag waxoon na leen ne man dey yàllaa ma yónni ci yéen waaye nit laa kom yéen am ndey am bàyyi comme yéen kon man teqale bi nga xam ne moo ne sama diggante ak yéen mooy yàlla def maa dee yónni ma te yónniwu leen mu ne kon bàyyi leen li ngeen di def at ma ca tego comme nag ko économie dëkk bi mu ngi sislante woon ci diggante lii nga xam ne mooy jaayu tàndarma tàndarma amut kon at moomu économie dëkk bi dafa wàcc li nga xam ne ñun Sénégal fii li ñuy lekk li ci ëpp ceeb la waaye pourtant li nga xam ne moom lañuy ëpp li ñu mooy dugub waaye li ñuy dunde li ci ëpp ceeb la nga xool ne ñun li ñuy bay ci ceeb moo gën néew li ñuy bay ci dugub bi maanaam li ñuy bay ci dugub moo ëpp kon suñu économie réew dafa waroon a taxaw ci dugub waaye tey jii bu ceeb amul ñëpp yëg ko wàññi yëpp yëg ko dëkk yëpp yëg ko kër yëpp yëg ko mu mel ni léegi ceeb moom moo yar suñu digg boobu nag ci a madinatu munawwar sayyiduna wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom seen mu nga sukkandiku woon ci tàndarma nga xam ne tàndarma ñun dañ koy gis di lekk tàndarma suñu yoon nekku ci saf na suukar wala saful suukar wow na wala tane leen ci xam waaye ci biir tàndarma am na ci xeet yoo xamante ne bu baax la day faj am na boo xamante ne ñii nga xam ne noonu la mala yi wutee noonu la tàndarma yi wutee tàndarma yi dem na ba ci téeméer ba ci ñetti téeméer ba am ñu wax mat na junni ak fukk ak téeméer 1111 ci tàndarma am ñu ne ba 313 yi moom wóor na leer na mu des nag 3 1111 yooyu bu ci nekk ci xeet yi am na bu mu niroo ci xeet yàlla waaye am na 313 xeet tàndarma yoo xam ne tàndarma nga ci xam rek waaye bokkuñu mu ne waa lu tax ren moom économie bi daanu na lu tax tàndarma bariwul. ñu ne ko yaa rasulallah yaa ñu waxoon daaw kat ne bu ñu defati lii te loolu ñu doon def ci tàndarma yi moo ñu doon may nag ma bëri bu ma bëri ñu jaay bu ñu jaayee dëkk bi daal di nay yi bu ko defee économie daal di dox mu ne toog leen mu ne lépp lu ma leen waxati lépp lu ma leen santati lépp lu ma leen laajati su fekkee ne li ma leen di wax ci man la jóge loolu jar na seetaat ñu seetaat ko waaye su fekkee ne ci yàlla jóge lay yàlla ci yàlla la jóge kon sam'an wa taa maana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee dara ne lii ci yàlla la jóge ñu ne ko yaa rasulallah lii kat dund nañu ko waaye li nga wax ak lii nga xam ne moom la ñu dund bokkut su fekkee ne ci yàlla la jóge bu leen xalaat bu leen taraddut dem leen ngeen defi ko dégg ndigal su fekkee ne nag ci man la jóge nag ñu xalaataat ko ndax man nit laa comme yéen mun na am mu juum comme yéen bokk yi kon fii min hadal intilaq ñu daal di xam ne kon ci point bii la ñuy kon ndekete kilifa dana juum sëriñ dana juum imam bi dana juum monsieur le président de la dana juum ministre bi dana juum ku ne dana juum ñu ne kon léegi hadis wala sunna boobu wala alquran wala sharia bu ñëwee naka lay ñogalee lii mu ne alquran indi na lu leer nañ mu ne yéen ñëpp seen mbir dem leen ngeen yóbbu ko ci yàlla waaye su fekkee ne am na benn werante ci mbir yi delloo leen ko fan lañ ko delloo ci yàlla ah kañ delloo leen ko ci yàlla su fekkee ne gëm ngeen ko bu ngeen ko gëmul nekkoo ko beneen affaire la lan moo ñàkk gëm bi maanaa kufru dina ñëw ñu ne kii yéeféer lan moo yoon yéeféeram mooy dafa gëm leneen lu dul alquran teg ko ci kaw alquran wala boog dafa gëm li nga xam ne mooy langage yu politique mu teg ko ci langage yu religieux wala boog dafa jël lii nga xam ne mooy fen mu teg ko ci kaw dëgg wala boog mu jël li nga xam ne mooy lu ñaaw mu teg ko ci ci lu rafet wala boog mu jël li nga xam ne mooy loi ak droit mu teg ci loo xamante ne neen la teguwul fen kon su boobaa kon ñu xam ne kon ndeke doomi aadama bi dafay jaar di dem waaye fu muy jaar di dem lépp danger la mu ne kon saa yoo xamante ne dara am na dellu siwaat leen ci yàlla ci yàlla ak yonent bi in kuntum tuhibbuuna allaha wa rasulahu bi maana su fekkee ne xëccante am na tiirante am na waxante am na xëccante am na xuloo am xeex am in tanaaza'tum fi shay'in fa rudduuhu ila allahi wa rasul kon dële leen ko ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee da ngeen mën a am li ngeen am kon bu ko defee mu mel ni kon ñu ngi wax ne nasiha ñu ngi wax ne nit ki na ko laay biir waaw day dem ba bu buntu jamono yow boo laayee nit biir mu foog ne da koy xas da koy xul da koo xeeb da koo da nga koo da nga koo ñaar moo am ki ngay laajee biir dafa rëy bi maana bugul ko ko laajee biir bugul ko ko critiquer bugul ko ko xamal dem na ba foog ne moom rek moo xam xelam doy na ko benn ñaare ba wala yow mi nga xam ne yow yaayu nasiixa bi. yow yaay laaye biir nit ki yow yaa xamul dañuy laaye biir yaa xamul fi ñuy laaye biir yaa xamul ñi ñuy laaye biir te ñett yi lu am solo la ci bu nga xamante ne yaa ngi laaye biir kon bu ko defee bu agsee nag ci li nga xam ne mooy yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon leen ngeen teg ko kooku amul ki amul ka atte bi ñëpp la laal wante nag bil xikma wal mawizati al xasana beneen qaayda ñëw boo demee ci chrétiens yi dañoo gëm ne croix boobu nga xam ne moom la ñu jël di ko lonkoo ñu ne mooy Isa ñu bëri si ñoom chrétiens yi xam nañ ne du Isa ñun jullit ñi xam nañ ne du Isa kan moo ñu woon wan leen ne du Isa jalla jalaaluhu wa azza kamaalu bi nga xam ne moom moom ñëpp yàlla ci boppam moo wax ne du moom Isa kenn reyu ko maa qatalooho maa salaboho walakin shubbiha ànd ak loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam na ko ndax lii dafa jiitu juddoom ci zahir bi maana ba ñuy wax ne Yeesu Kirista dañ koo daaj dañ koo rey loolu dafa jiitu juddoom boobu judduwul moom ci zahir waaye ci baatin moom mu ngi fi woon moo tax bi yonent yàlla Yuusuf boo demee suratu suratu Yuusuf ba muy wax ak moom mu ne nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bi ma awxaynaa ilayka hada alkitab wa in kunta min qablihi la min alghafilin donte xamuloo ko fekkee woo ko danaa la ko wax jàngal la ko kon yàlla jàngal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne fekkee woo bokk yi ba loolu bu mu amee ñoom ñu gëm lii jàpp lii di ci dundee di ci dem qaala alxawaariyuuna man ansaari ila allah xawaariyuun nahnu ansaarullah bi nga xamante naa isa ñëw na bi wax ak ñoom ne maa ngi dem dina am ku ñëw ismuhu ahmad fa lamma jaahum bilbayinat qaalu haza sihrun mubin ñi nga xam ne ñoo ay nitam bëgg ko ànd ak moom ci ñoom ñoo xaajoo bi maanaam taalibe yi ñoo xaajo taalibe yi ñoo xaajo mu mel ni tey rek nga ne parti sàngam ak tariqa sàngam xaajoo nañu ak ki nga xam ne moo leen digaloon mooy seen kilifa nga xool nag xaajoo ci parti xaajo ci tariqa xaajo ci diine xaajo ci pas-pas lan la mën a yàq ci àddina dina la yàqal sa àddina dina la yàqal sa àllaaxira te lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon moytuloo julliti mu tam laa tanaaza'u fa tafshalu wa tazhaba riixukum wasbiru inna allaha maa sabirin waxaat ne wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu kon mbokk yi yàlla bi mu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni Moussa ak Haroun dafa wax ne bu ngeen demee fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkar aw yaxsha yow yaa ngi wax ak buur ak président mu ne na nga xam ni ngay waxee ak moom qawlan layyinan la ko wax bu dee ci ahlul kitaab nga xam ne dañoo gëm loo xam ne amut fenn ñu gëm ne loolu moo am mu ne bu ngeen di werante ak ñoom sax mu ne jaare leen fii mu ne fat wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan mu tax boo demee ci histoire ci taarix suñu mbokk jullit boobu bu baax boobu bu màgg boobu Ahmad Didat dëkk Afrique du Sud nga xam ne ba muy wax ak yéeféer yi la ñuy wax ci Isa ak ci Moussa mu di ko tekk di ko dindi tudde woon ko munazara da ngay taxaw ma taxaw ñu toog ci télévision bi ñu wax li nga xam ne mooy sa xam-xam nga indi ko li nga xam ne mooy sama xam ñu indi ko yàlla dana atte lan la boobaa nag bi nga xam ne munazara na ñoo xam ne kon kii moo nekk ci dëgg mu tax ay junne junne nit tuubee ci li nga xam ne mooy loxoom waaye nga xool ki nga xam ne suñu bokk yi fii rek bi Sénégal fii nga xool sayidi wa cheikh Ahmadu Bamba radiallahu taala anhu nga xool sayidi wa cheikh El Hadj ci seen jamono jamono istimaar xamante ne ñam seen doom istimaar bi bi maanaam li nga xam ne mooy colonial bi jël na mu ngi jël ay nit di yóbbu bokk na seen politique ñu jël seen doom joxe jël seen doom joxe waaw sa doom nga di ko joxe. xanaa lislaam moo la ko may ahakañ lislaam moo la ko may xanaa lislaam moo la ko sant ahakay moo la ko sant nga xam ne ñooñu waxuma la seen wax ak tubaab bi seen wax ak waa ak colonial bi waaye seen njaboot dugal nañ leen bi ba bi ñuy rey ay nit seen njaboot deewaane leen ci biir guerre ngir lan ngir defar ngir defaroo ngir mën a am li nga xam ne moom nga soxla ëllëg nga xam ne kii dafa ñëwee doole wala mu ñëwee xam-xam yow nga ñëwee xam-xam ak leeru yàlla bu ngeen dajee rek yaa koy man ndax sa bos bu yàlla la te bosam bu seytaane la te ala inna xisba seytaan humul xaasirun ala inna xisba allah humul muflixuun kon wa jazaau sayiatin sayiatun misluha waaye waxal jazaawul ixsaan illa al ixsaan kon su fekkee ne rafetal la da nga am rafet kon mbokk mu mel ni kon li ñu bëgg a tënk moo di ne buñ lay laayee biir nangul booy laayee biir na nga xam ni ngay laayee biir ci des mooy jamono bii ñu toll ñu ne sayyiduna wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa moo ñu indi benn aaya indi ñu ñetti aaya indi ñu lu tolloog six mille nangam ci ay aaya waaye mu am nag yoo xam ne moom ñetti aaya la lu jar bàyyi xel la dafa waat ba noppi waat ci jamono waat ci dëkkandoo waat ci lu ne waat na ci waaye bii nag mu ñëw waat ci waxtu tàkkusaan waaye mu waat itam ci li nga xam ne mooy jamono wal as am na ñu koy firee tàkkusaan aka kay mun na nekk waxtu tàkkusaan lu tax ndax waxtu tàkkusaan asr la tudd lan moo tax mu tudd asr mooy dafa nekk ci diggante bi jant bi di so jant bi mu ngi waaj so beneen julli du fi amaat lu dul bi nga xam ne guddi gi ci la tàmbalee kon julli tàkkusaan bi moo tëj bu bëccëg naaj bi mu ne su fekkee ne la kon kon mooy bi bokk bi wax ne déedéet wal asri mooy jamono maanaam mujjantalu jamono ah kay su fekkee ne axiru zaman la kon axiru zaman ñun ñu ngi ci takkusaan bi wala ñu ngi ci timis bi est que àgguñ ci géeye bi sax di xaar fajar jot kon subaa kon ñu ne wal asri innal insaan yàlla waat ci lii ba pare moo xam jamono nga ko tuddee moo xam takkusaan nga ko tuddee ne nit mu ngi ci perte yooyu ñëpp perte ngeen ah yàlla ñun ñëpp mu ne waaw ba mu des illa alladina amanu ki gëm yàlla wa amilu salihat jëf-jëf ju baax wa tawaasoo bil xaqi wa tawaasoo bis sabr ñuy waxante nag dénkante waaye tam di nasiha ah kañ sa morom nga laaj ko ci dëgg ak dëggu ci njub ak mbaax waaye tam ci li nga xam ne mooy muñ ndax muñ mooy li nga xam ne boo ko amul ci àdduna sa lépp yàqu na moo tax ne wasta'iinu bis sabri was salaati wa innaha la kabira illa ala alxaashiin ci nga xam ne. ni ñuy xamee ki gën a ki la gën a gëm yàlla ki la gën a ëpp maqaama ci yàlla mooy ki la gën a mën a muñ ku la gën a mën a muñ rek kooku moo la jiitu lan moo tax ne istainu bi sabri wa salaa la kabira illa ala xaashiin mu la ëpp lu muy julli mu la ëpp lu muy taxammul résistance lay def ci dund bi ci lépp nag ci dépense ci lekk ci naan ci wuti ci julli ji ci coono ci deg lu ne pour doomi aadama yi waaye tam bu dara ñëwee da koy muñ fa nit ñi war a jooyee moom day ree fa nit war a jógee rek xóotal bët rek xotti rek dóor rek gaañante moom mu ne tekk dal mu ne kon kooku moo la gën a àgg ci yàlla ndax lan mu ne ki nga xam ne moo mën a muñ kooku jege na yàlla waaye ki nga xam ne mënul muñ kooku moo gën a sori yàlla la kabira illa ala alxaashiin lu rëy la lu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla bëgg yàlla ragal ko ti yaakaar ko kon nag bokk yi xadis bu ñu jàng léegi mooy kullukum raain wa kullukum masulun raiyatihi mu ni wal imaamu raain mu indi wal wa zawjatu wa zawju wal xaadimu yépp mu indi ko lan moo tax responsabilité bi nekk ci àddina ci kaw suuf mu ne kenn ku ci nekk na ko jël boo ko jëlul da nga sonal sa bopp boo ko jëlul da nga xatal sa bopp boo ko jëlul danga xatal sa paxu bàmmeel boo ko jëlul danga nga dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal ci safara waaye yàlla nañu yàlla dugal ci aljanna kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi ci politique ci li ci liste diine ji waaye ci lépp loo xam ne social la mu ne kenn ku ci nekk ba sa dëkkandoo kenn ku ne responsabilité toog na benn bis rek mu commencé di waat wallahi laa yumin wallahi laa yumin kii gëmul kii gëmul ñu ne ko yaa rasulullah kan moo gëmul mu ne ki nga xam ne dafa fanaanoo biir bu fees lekk ba suur ba denc te dëkkandoo mu ngi ci suuf toog takk biiram amul lu mu lekk amul lu mu naa même tey jii fast food yaa ngi jaay waaye amul lu mu jëndee amul lu mu lekk yow nga lekk ba suur bay tuur bay denc est-ce que loolu amul ci ñun ah kay nga xool nag su fekkee ne loolu la kon kon responsabilité est-ce que jël nga ko ci sa dund est que jël nga ko ci sa bànneex est-ce que jël nga ko ci sa naqar te loolu ngay def noonu am na bés amuloo ko woon mënoo ko woon bu see sax bu dee sax yaa ko moom mën na am li nga jëndee lii yëpp am na ci benn fifteen boo xam ne moomuloo ko. te pourtant am na koo xam ne yilifuloo ko mu ngi mu ngi sonn te joxuloo ko mu lekk ak koo mën a doon ak noo mën a tudd baaxut te baaxut ci yow dafa am benn waay kilifa la woon ci mim réew mu am problème ak soxnaam ma toog bis minuit une heure du sama téléphone bi sonné insisté lii mu ngi am en 2003 2004 guddi na mii ma fi ñu bari xaw ma fi ñu bari maa ngi soog a def dakaaru njaay gi ñetti at ma jël téléphone bi am ku ma wax ne jëlal kii mu wax ak yow lan la mu ne jabaram moo ko tuur essence pour taal ko jabaram moo ko tuur essence jabar ji tuur na essence ci néeg bi tuur na essence ci kër gi tuur na ko ci kawam lu ci des lu mu taal ana kan moo ko mën a dimbali kan moo ko mën a dimbali ku dul yàlla ak kan ku gis te man mu am ñooñu tuddee ay gardien ci koñ bi xam nañ leen kon bu ne am na ay gardien ci biir gardien yi am na ñoo xam ne dañoo sob di xam lu ne di dugg ci kër gu ne di gis lu ne di xam lu ne ba yenn saa yi bu càcc amee ci koñ bi sax ñu bëgg a foog ne kooku ndax li muy dugg di génn mun na mun na am sax sàcc ko waaye dafa sob dafa bëgg a xam dafa sawar am boo xam ne xam nañ ne kii moom fii lay yëm fere lay yëm bi loolu amee man ma génn wàcc dem bay dugg sama oto sama xel yedd ma ne est-ce lii am na nga xool nga ndax sama xel la wala seytaane la est-ce que fii nga jëm est-ce que noonu la mbaa du piège la ma yëg ci kaw téléphone bu sonewaat ñu ngi ci kër ti kër di ma ne paas ma ki may wax mu paas ma ko mënul wax mu mënul jël téléphone bi jaba ji xëccanteeg moom mu wax ca kaw ma dégg baat xam ne kii diw la ndax xam naa ma wàcc taal sama oto gëdd dem bi ma yegsee fekk am ñu toog ne am na ñu toog nii am ñoo xamante ne ñaar ñu ngi ci kër gi di jàppale waa ji lan moo xew lu tax ñuy toog te ma leen ko jàppale parce que joxuloon cër ci koñ bi parce que buggul gardien yi parce que bu jëflante ak ñoom parce que wóoluwuñ ko ubbiwul kanamam ci ñoom parce que parce que ba parce que yi jeex li ngeen xamee réewu tubaab waaye am na ñoo xam ne nag bu tabaski jotee bu korite jotee lu xew lu ne mu jox leen mu lu xew rek mu jox leen ñooñu ñoo jóg te di ko dimbali sa mbokk nekku fi te kilifa nga ci nguuru Sénégal gi léegi nooy def bi mbir mi amee ba pare ba ñu def lépp ba pare ba jàpp jabar ji yóbbu moom ñu jàpp ko yóbbu feneen ma dellusiwaat tëj kër gi jël caabi yépp téye gendarmerie ñëw police ñëw ma toog sama biir oto ci la na genn gardien yi ñëw nag di ma seet ah waa sëñ bi da nga xam ki ma da xam naa koy mbaa du sa mbokk la ma ne leen lan la rus naa wax ne sama mbokk la ah lan la woon ñu ne waa ji de ku baax la de waaye su suñu moo tax tam bu ñu ko def li ñu koy def dem suñu yoon nekku ci waaye nag daw ndaw see ko tooñ nag moom tooñu du def dara ku jublu waaye ku baax la waaye comme dimbaliwuñu faalewuñu ci koñ bi ñu tam nii koy xool te dëkkandoo jàmm ci gën nga xool baatu dëkkandoo jàmm ci gën sayiduna wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla indi ñu ko ci alquran daa dane wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa dil qurba gannaaw yàlla ak yonente bi wooy jur yi waaye ab dëkkandoo ak dëkkaale bokk nañ defar dëkkaale yi def suñu dëkkandoo nañu bëggante nañu jàppante nañu yëpp jàppalante nañuy waxante nañu demlante nañu bàyyi jëw nañu bàyyi fen nañu bàyyi wor nañu bàyyi tappale nañu bàyyi sosal nit nañu bàyyi waxtu lu ñu xamut lu métti metti metti métti metti li nga xam ne fekkee wax xamoo bul wax mukk ne waaw nii la loo ci mën a wax rek yow la wallahi wal qur'anil azim loo wax ne noonu la te du noonu pax lay xaar pax mu ngi lay xaar bàmmeel mu lay xaar mbugalu safara mu lay xaar mbugalu bàmmeel mu ngi lay xaar premier jour première nuit ci biir bàmmeel nan ngay mel foofu yaay kan foofu xammeewul sa pal xammeewul sa dara loolu sa jëf la xam bokk yi dem nañu bàyyi nañ la pare nañ ci yow des nañu soo nañ la ñu ngay nekk ci leneen ci beneen programme yaa ngi ci beneen programme ana ban programme yow nga waajal sa bopp ban projet nga waajal sa bopp ci biir bàmbeel pour yow nga mën a xam ne yaay kii lii moo tax ñu yël yënt yi lii moo tax kilifa diine yi di wax lii moo tax imaam yi di wax lii moo tax yàlla di wax lii moo tax muy fàttali moo tax mu yónni yónnante yëpp ngir lan yéen ñëpp ngeen bokk ci lan jàmm ak sutur ak xewal ak naataange te loolu dara du ko mayee lu dul mbaax ak njub ak lépp loo xamante ne du noonu nga bàyyi ko rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi alaxirati xasana wa qina adaba annar wa adxilna aljannata maa alabrar ya azizu ya gafaru ya rab alalamin allahuma rabbi habib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من القانتين واجعلنا من الحافظين توابنا تائبين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون